Fin d'année 2020, une promo spéciale avec Huelman, la bière des VIP, du 5 décembre 2020 au 5 janvier 2021, avec une réduction jusqu'à moins de 70%, des costumes de classe pour des hommes de classe, des chaussures de qualité, des maillots de marque pour vos activités sportives, des accessoires de beauté. Notre adresse Sacré-Cœur 3, derrière Boulangerie Zone, en face chez Mbaye Faye. Téléphone 77 555 21 67 ou le 77 370 43 43. Réellement, le prix s'oublie, la qualité reste. léegi beneen combat boo xamante taxaw na muy Modou nañ la nga def ci sortie euh, euh, euh, kii John nu mu tuddati John Alioune. combat bi euh, taxaw ak bi mu yëpp waaye moom jàpp na ni moom amu benn sens ci boobu noonu sur tous les côtés moom jàpp na moom amu leen ci benn sens loolu combat tamit lan la laaj waa nan lañ ci war a duggee Ama Baldé nan la ci war a duggee ndax nag day bëreeg le roi des arènes. daaw dafa am combat Boy Niang am combat Eumeu Sène am combat roi des arènes ma dajeeg Ama Baldé ci place u Landiang ne ko Pikine dalee na sas neuf points ngeen ko ameel te yéen lu ngeen am Pikine a leen ko may kon bu leen Pikine sasee dara nag il faut ngeen xar ci seen tànku tubay lañ la nga ngi taxaw trois points lañ lay laaj di laaj Boy Niang trois points di laaj Eumeu seen trois points mu déglu ma attentivement respecté affaire bi parce que Papa Sow la doon bëreel bëre ko ak précision daan parce que su ëppaloon ci combat boobu mën na ko ñàkk ndax papa dafa da koo féete suuf ba pare bëri mën a bëri ci ay wet mais géré na ko ba capté ko ba liggéey lu tax mu mun koo daan booy ña war a ñëw bi booy ña ñëwee même règle lañ ko waxaat amel nga Pikine trois points mu war a bëreeg Sa mu daan Sa mu des Eumeu Sène intox daal di ñëw ñu ne voilà Ama Baldé nee na Balla Gaye lii nangam nangam war a diviser Pikine bi ma ñëwee ma waxtaan ak ñoom nanguwuñ maa déglu ma dem ci lanjang woo Abdou Bakhoum far yàlla woo ñoom booy ñang ak ak ñoom waa kër Ama Baldé léegi booy ñang woo ma le lendemain fekk maa ngi toog ak lañ mënuma daal gis naa ne li nga waxoon noonu moom mooy lu gën a correct danaa jël drapeau bi yóbbul ko euh, ama ñu dem yóbbul ko Eumeu Sène ñu dem jour boobu dañoo doppe Eumeu Sène que présence su ñaari xale yi ak drapeau bi ñoom ñaari ñoom ñu am victoire moom war a bëri roi des arènes devant Abdou Karim Sall la tudd foog naa ni ñoom Malick Thiandoum ñoo doon def euh, kii bi alors loolu doppee Eumeu Sène mu dem gagné roi des arènes et pourtant waxoon naa leen wax naa ko ak euh, Sala Bigué ci euh, émission bu ma invité woon ne ko su Boy su euh, Eumeu Sène di daan Bombardier ci kanamam la koy daan loolu tax ñu bari dañu wax ne yow xanaa combat bi yow da ko xamoon waaye ci technique rek laa ko laa sukkandiku du woon ay sëriñ wala dara parce que bindu Bombardier ci laa tënku pour wax loolu alors ñu gagné saison boobu tey jii loolu moo ñëwaat encore neuf points lañ soxla léegi man dama ne man su ma dajee ak Ama Baldé roi des arènes laa koy wooye am naa ci droit. lu tax waaw. man damaa sukkandiku. ci passé. ñi mu doon kii bokkuñu de. li tax ma sukkandiku ci li passé. non ci Modou Lo d' abord dañ ne ko da nga nekk roi des arènes mu war a bëri jeeg roi des arènes bés boobu moo mag képp ku mu àndal yaakaar nga ni di tey jii la Modou Lo war a nekk roi des arènes yàlla dogal mu échec mu war a utaat yoon wu koy yóbbuwaat ci roi des arènes war dem bëri jeeg Balla mu dem bëri jeeg Balla avant deux mois avant combat bi ñu waxaat encore combat am ak roi des arènes muy Eumeu Sène moom pour moom dafa war a daan Balla Gaye dem bëri jeeg Eumeu Sène daan ko mu dem fële ñu daan ko mais terewul taxaw na mu préparé combat boobu ak combat la mu ci ñàkk yóbbu gars yi lu ne mu di jaay ko ci waaw perte ko boobu am na lu ko yàlla dencal li ko yàlla dencal mooy da ngaa war a bëri des arènes daan ko nekk roi des arènes Eumeu Sène bu muy nekk roi des arènes yaayam moo ko wax ne ko di nga nekk roi des arènes te drapeau euh, président de la république la combat bi taxaw kenn waxul kan ban drapeau la parce que ba combat bay taxaw kenn waxul woon ban mais bi ñu toogee ba ne drapo président de la république la Eumeu Sène day xam ne kon moom li ko yaayam waxoon ñëw na tey mu nekk roi des arènes kon tamit Modou Lo lañ ko waxoon ci ni di nga nekk roi de arènes jaar bi mu jaar ak umiliation yaak yëpp parce que dafa waroon nekk roi des arènes moo tax. yow fi nga may wax de. déedéet du mystique de. secret la parce que. yow yaa ngi liggéey mais am na koo xam ne nee na la yow di nga mus a am sa site internet <laughs> ah? ah. yaa ngi nekk toujours Lutte TV di liggéey. bés boo demee ba ñu lañ la teg tegtaloon nga yegg ca. Hmm. xalaat nga ni war ngaa mën a am site internet. waaw xam nga sax waxu teg waxu tegtal rek dañ koy yóbbu ci mystique. ah waaw mais tegtal. léeg-léeg gis nga mystique lu ñu lay defaral la mais lu ñu la ni ay ay prévision lii mën na mën nga koo am ëllëg da ngay nekk xale bu te bu ndaw sax ñu ñu ñu ne la suba di nga nekk mën ngaa nekk kilifa jiite jiite réew mi yaa ngi dégg tey jii pour bañ a kii Modou loolu nga xam ne dal na ko ba tey jii ak li ko fi mu jaar yëpp perte bu Bombardier ñëw bala Gaye daan ko deux mois après mu nekk roi des arènes kon lañ ko waxoon ne mën ngaa nekk roi des arènes ñëw na waaw amaa Baldé tam suñ ko ne mën ngaa nekk roi des arènes mu toog Modou Lo yàgg wax ne moom bëriwul ak moom na dem jaar fi mu war a jaar nangam ak nangam ba tey mu nangu bëreeg moom mais mën ngaa jàpp ne mën naa nekk roi des arènes. mën naa nekk roi des arènes bokkul ak roi des arènes laa koy woowee comme si yow da nga am ay preuve que ni day daan Modou. mais loolu laay jàpp man man nangu bëri bi. moo tax ma jàpp ni moom mën naa daan. mën naa daan ak day daan du benn. ah. mën naa daan ak day daan du benn de. waaw ba tey mën naa daan. lan nga sukkandikoo ci bëre fit wala doole. li trajectoire bi mu jaar xanaa xamoo ne daanul tafaatin moom da la yor Ama Balde lii lii fi nit ñi gën a xalaat ni foofu moo difficile dafa dafa nooy ca moom. Ama waaw daanul Gris Bordeaux. mais daan na tafaatin. moo daan bombardier. Gris Bordeaux moo daan bombardier. ba tey léegi moom bañul bëree ak bombardier ba bañul bëree ak euh, Gris Bordeaux mais Modou Lo la ko yàlla booleel. patron Pikine ko daan deux fois. ba tey waaye rakkam mën na koo daan rakkam. mën na koo fayul. am nga yaakaar ne roi des day ñëw Pikine. day ñëw Pikine de. combat bi ku ne mos nga parcelle da doon wax rêvé pour mos. mos na du jox keneen mu mos. Pikine nañ ñaari waaw mais dañu mosaat ñetti yoon ndaxte nag roi des arènes moom kenn ku ko am mooy tableau bi nga xam ne mooy daj dëpp gi mm-hmm. ku ko am ba pare amatoo looy perte mm-hmm. te mënoo ko yóbbaale il faut nga jox ko keneen. Yékini bu muy nekk roi des arènes dafa nu moom day garder affaire ba mu neex mu dem yóbbu ko Balla Gaye ñëw détrôné ko. moom tamit yor benn lancé bu baax daal ne affaire bi du ko du ko bàyyee kenn Bombardier jàng naa ko bu yàgg xam naa ko Bombardier ñëw daan ko détrôné ko Eumeu Sène ñëw détrôné euh, kii Bombardier Modou loo ñëw détrôné ko roi des arènes dootul nekkati lu yàgg fenn hmm. xale am doole ba pare xereñ tey nag boo ko xasee jàpp moom xoolal tey ji Modou Lo lan la lan la lan la manqué ci làmb loo xam ni lu mu war a wutiwaat la. mais combat bi dafa nekk défi bu rëy ci moom parce que Ama Baldé daf ko yàgg takku et puis Ama Baldé dafa jàpp ne moom Modou Lo moom benn loolu défi la boo xamante ne Modou Lo war na ko waajal combat bi def la tout pour Ama Baldé bañ ko dal. non moom Modou Lo munul euh, Ama Baldé ne Modou benn beñe la parce que moo ko daanoon mbapat. beneen dama lay wax rek moo ko daanoon mbapat ci diggante bi mu daan ay waa parcelle am pro am xalaatu bëree ak moom pour rien rek wane ni yow daanoon nga ma mbapat. waaye tey jii màgg naa ba tey nag mu amaat leneen lu ci tegu mooy roi de arènes loolu ay caaxaan jëlu ko ci Modou Lo Modou Lo c'est un très grand champion am ay stratégie yu wóor man su may wax lii may wax nii parce que képp ku yàlla wacc fii rek am na lu mu la dencal Modou lépp loo xam ne ci làmb bu luy titre am na ko daanaka ñi ñuy tudd ci làmb ñëpp bari na ak ñoom li ci ëpp da ci am ay victoire fenn dong la nit ñi wax mooy contre Balla Gaye Fin d'année 2020, une promo spéciale avec Huelma, la bière des VIP, du 5 décembre 2020 au 5 janvier 2021, avec une réduction jusqu'à moins de 70%, des costumes de classe pour des hommes de classe, des chaussures de qualité, des maillots de marque pour vos activités sportives, des accessoires de beauté. Notre adresse Sacré-Cœur 3, derrière Boulangerie Zone, en face chez Mbaye Faye.